Bureau euh, 5 mooy papay euh, maire de Dakar euh, Barthélémy Diaz Jean Paul Diaz mi ngi noonu mbokk yi ngeen koy seetaan fii ci Sénégal pour a ñëw accomplir li nga xam ne moom mooy devoir am Jean Paul Diaz ñëw na dugg na moom Jean Paul Diaz mi ngi noonu ngeen yi seen ak costume bi papa yi Barthélemy Diaz ngi noonu di dem ci li nga xamante ni moom mooy ci li nekk ci bureau yi. Jean-Paul Lucien Mendez Diaz moom ngeen dégg noonu tur bi voilà léegi mi ngi tànn bulletin yi Jean-Paul Lucien Mendez Diaz Jean-Paul Lucien Diaz Mendez mi ngi noonu mi ngi tànn bulletin yi jël na jëlaat na beneen après day def choix bulletin bi mu war a votel Jean Paul Diaz mu ngi noonu di jël bulletin yi voilà. boo xoolee fii ci centre bi muy voté amul rang dangay ñëw rek euh, daal di dugg boo ñëwee ay deux personnes trois personnes nga fi fekk fii ci école Massaër Niang léegi mi ngi noonu day dem ci mbañ gàcce bi voilà euh, tànn na bulletin ba pare léegi nag day dem ba ci urne bi mu daal di koy dugal Jean Paul Diaz ngi noonu accomplir na devoir am léegi nag day dem def signature am def encre bi daal di dem aca ndaw J'ai le sentiment que ça se passe normalement. C'est une, c'est ça mon impression. Et je souhaite que ça continue de cette façon-là euh, jusqu'à la fin, que tout le monde euh, respecte euh, l'autre et que personne n'essaye, c'est ce que j'avais dit au début de cette année, que personne n'essaye de, de, de, de, biaiser le, le vote des, des électeurs. Donc euh, je pense que si on continue comme ça, ça se passera normalement. On n'a pas encore vu de rush. On a vu justement que... Oui, on me l'a signalé tout à l'heure. Euh, je ne sais pas. Vous savez, les gens votent beaucoup en fin de matinée et au courant de l'après-midi. Donc jusqu'à 15 heures, je pense que euh, il ne faut pas se faire euh, euh de mauvaises impressions. Benno avait perdu au profit de Yewwi. Euh, vous pensez qu'aujourd'hui, euh, il peut y avoir renversement de situation? Écoutez, c'est le peuple qui décide. Moi, tout seul, je ne suis pas le peuple. C'est le peuple qui décide et ce qui décide, c'est ce que nous devons accepter. Ce qui est particulier, votre fils est de l'autre camp, du camp rival. Il est le maire de Dakar. Qu'est-ce que, comment est-ce que, quel, comment est-ce que vous... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il n'était pas maire. Il était maire ici, là où de nous Dakar, sommes. De la ville de Dakar. Ah oui, mais écoutez,

Vous le soutenez ou pas Écoutez, ça, je pense que ça n'intéresse personne. Euh, le vote, je vous signale, il est secret. Et ce n'est pas moi qui vais euh, dévoiler le secret. Donc, oui, mais c'est quand même particulier, non quand même... Non, ce n'est pas particulier. Ça, ça a déjà existé. Moi, je me souviens, lorsque j'étais au PDS, on a rencontré des familles où des frères ou alors des parents étaient dans d'autres camps alors que les enfants étaient dans d'autres camps. voilà. ci olof euh, nga wax ñu woote nga ba noppi. li nga xamante ni tey bi nga génnee mooy sa sentiment bu njëkk. waaw euh, c'est-à-dire que njort naa ne dina dina dina fonctionner normalement ndax li ma gis ba léegi dal na xel li ma gis ba léegi léegi il est peut-être onze heures et demie dal na xel mais nag euh, li ma waxoon en janvier moom moom ci local yi moom laay waxaat tey. damay ñaan ñëpp respecter électeurs yi respecter texte yi kenn bañ a euh, labaj quoi que ce soit bu loolu bu amee jàmm day am et mu jeex. Benno ñàkkoon na ci ci ci kanamu Askan Wi jàpp nga ni euh, wala am nga yaakaar ni euh, renversement situation am man kooku peuple bi moo koy décidé askan gi moo koy décidé te man kenn du ma man kenn askan gi. Euh, tey jii moom mooy fii la war a wote nan nga ko jàngatee est-ce que ça pas un peu bizarre. c'est pas bizarre man dama yar suma doom yi dans la démocratie waaw kër ga moom foofu politique amu fa waaw donc euh, en février en janvier benn camp gagné peuple bi mooy décider ndax camp boobu moo war a gagné waat bi yoon am déet c'est ça léegi nag pour le reste du lu bees du lu bees donc euh, choix boobu mais mais choix boobu kañ du du ko léegi nii balaa maa ñëw xamoon naa fu may voté voté naa ba pare mais il n'était pas maire de Dakar man am naa ci ma maa ngi ciy sant yàlla bëgg naa ci euh, góoru Sénégal yëpp yoo am suma âge ku ci nekk bëggoon na nekk papam tey man nag bëgg naa ci kontaan naa ci yàlla na yàlla nekk da koy yàgg a nekk maire de Dakar waaw. jërëjëf merci c'est bon mbokk yi gis ngeen ko ah moom euh, lañ doon jël nii léegi papay Barthélemy Diaz Jean-Paul Diaz ñëpp xam nañ ko ci làngum politique gi xam ngeen ne moom ak doomam bokkuñu nag camp bokkuñu. fu ñu bokk ke mi nga yeewi moom Jean Paul Diaz moom mi nga ca APR kon dégg ngeen li mu wax nee na lii du njëkk tey ci benn kër nga gis kii far fii kii far fee te it laaj nañ ko ba xam sa doom nga jàppale am déet mu ne vote secret la euh, gis ngeen lim bi mu tànnee euh, xobam bi nga xam ni moom la war a voter dugg ci mbañ gàcce yi moom la dugal ci enveloppe bi dem voter ji mais biñ ko laajee ba xam da nga jàppale sa doom déet mu ne loolu kenn mënu koo wax parce que vote moom c'est secret loolu moom c'est tout fait normal kon euh, Jean-Paul Dias mi ngi noonu euh, def na votam ba pare kenn xamul na kan la voteel wax nañ ko ci diggante camp yi nga xam day uute ci ay biir kër nee noon neneen loolu yàgg na fi teyit it euh, comme doom ñi nekk na maire Dakar ñu ñëpp ñëpp gis ne war na ko mën a jàppale ci question wu journaliste yi mu ne yàlla na ko doon doon ko ba faw parce que loolu du bu njëkk nekkoon na maire fi tey mu nekkaan maire de Dakar kon loolu ndogalu suñu borom la mais daal destin bi daal mi ngi noonu ku ci nekk rek day dem ca wetam paay ja dem na ca wetam doom ja dem na ca wetam que maire gañ noonu la ko jàppee euh, man ak ndaw la woon fii nga xamante ni moom mooy ci école Mass Massaër Niane numéro un ci votu Jean Paul Diaz Barthélémy Diaz si kanam après midi bi incha allah rabbi la war a def votam